قال تقيني ربي من مهلكة قوليا إيمانا بقاتل صحبتي واجعل ثانيه في الجنه ودود أحرس كلنا في صحبتي واتقنا طرف أهل الكفرة تبت إليك يا مجيب توبتي نذرنا ربي دليل صحبتي هنا في الحديث بحق سيدتي جارتك المريم أخت صحبتي نامي سانت بروم فاو باخ di sargal maam Cheikh Ibrahima Fall amuri jël léegi bàyyi góor ñi di am mbégte lool ci bis bi nga depuis alxames ci guddi noo ngi koy topp ca settatal ànd ko murid yi ci di leen bëggal ci café gi ajjuma ji ci guddal maam Cheikh Ibrahima Fall gi nu ànd ko ñoom di sekk café gi di leen ko jox ci tawfeexu borom Tuubaa waaye di ci am mbégte bu baax a baax nag ndax lu toll ni université ak lu toll ni bisu xasida bu toll nii nga mën leen couvrir ci café Touba di leen ko jox ci waxtu wuñ ko bëggee ak nañ ko soobee maam ñu ci am bànneex ci saa su nekk ci ni nga koy joxe loolu moom du kenn ku dul kàttu du leen lu dul kàttu na ku baax noo ngi ciy sant borom Tuubaa bu baax a baax a baax di ci am mbégte di di gën a feddaliwaat suñu kóllëre ak euh, waa ëxlu bi di gën a santaat borom Tuubaa di gën a laxasaayuwaat te xam ne maam ci tàmbali leen toll ndax troisième édition bëri na bëriwul ñu ñu ñaaxaat mbokki taalibe bi yëpp rek bi di bëgg xam li gën a neex mën kon xam naa dañuy daal di jébbal Serigne Xolle bëgg Bamba Diouf moom it kàddu gi mu wax ni ban yëg-yëg la am ci bis bi en tant que membre de la commission Ahlu Café.

xanaa rek maanaam ngeen cee dolliwaat ba mu saf rek. ñu sant Serigne Touba bu baax a baax. jërëjëf ci bu ñu wuyu si. ndax ndaxte kii itam comme ni mu ko waxee. wax dëgg bés bi li muy neex neex neex maanaam daa am lu ko daq mooy yëg ne Serigne bi nangu na bés loolu daal moo ñu ci yitteel ñu. alhamdulilah ndax dañoo wóor si moom. Mm-hmm. ci maanaam préparation bi. ci mm-hmm. nekk lu bés bi. Mm-hmm. waaye ca bés ba bés ba paase nag. jërëjëf ndax ñun ñii ñëpp première édition bi daanaka maam nekkoon nañ fi. ñoo seere woon café. Mm. suñu borom dogal ñu dem dem dem bu fekkee ko ren mm-hmm. doxalaat café bi mu am ci lam ñu fekkoon mm-hmm. ñu gis ci maanaam fi ñu fekk ren itam ñu gis ci changement yu kawe kawe mm-hmm. xam ne nii borom Touba loolu moom suñu diggante ak borom Touba la waaye ñu ko koy santé rek di ñaan itam lu ñu am ci maanaam li des ci suñu dund lu tey lu tey fatama lañ maanaam bu mu génn mukk si ñu suñu lépp na doon si ñu suñu lépp na doon si ñu sans plus tard lay laaj lu ngeen dundee bis bi tey ak ban yëg-yëg nga ci am ah, bismillahirrahmanirrahim di sant suñu borom subhanahu wa taala tey santaat sëriñ bu wér wér di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant mbokki taalibe yi ñu àndal liggéey bépp ndax day mel ni liggéey moom coordinateur képp lañ si doon waaye ñi doon doxal jëmmi jëmmi li dëgg-dëgg liggéey mooy jëmm yee taxaw di leen sant te di leen bàyyi ak sëriñ bi moom mi am fay yàlla na leen fay barke fas day waaye ku ñëw première édition bi ñëw troisième édition bi moom xam ne coppite am na si mbir yi te mbooloo mi gën naa takku liggéey bi tamit gën naa jaar yoon loolu nag day mel ni ndimbalu sëriñ bi la di ñaan ndimbal loolu yàlla bu mu mës a denc ci suñu jëmm yi xam naa loolu mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom am nañ ko si biir mooy mbégte moo xam ne moom am na fu mu tàmbalee waaye fu mu yem moom mu nee su koo nat xanaa di soññaan mbokki taalibe yëpp rek tàmbale ko sama jëmm ji ñu gën a jàppaat te xam ne moom mbirum sëriñ bi nii képp lay demee waxtu wu ne mooy bis ba ngay gën a jàkk bis boobu lay gën a jàkk te ku xamoon préparatif moom xam ne sooxe woon na lool waaye sëriñ bay ngi mbiram moom nii képp lay demee waxtu wu ne si mbetteel di jaajëfal ñëpp rek tey ñaanaat bu baax rek Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak di santaan mbokki taale yu baax a baax loolu moom cant gu ma yëg la mooy xam na ne moom pësteef gi ci àndal moom kawe na njortu lool waaye di leen bàyyi sëriñ bi rek moom mi fay képp kum si doon rek mu fekk la fam lay fekk defal la lay defal te kenn du ko yëg barkeb xasida yi alaykum wa rahmatulah commission d'organisation suñu xaadim no gisse liggéey bi tay ak ban yëg-yëg ni ci am bismillah barki man ko barki man wax mu do wala awal wax ci guuy eh gaay eh leen jox seen wàccuwaay ah di amaat ak mbégte ak cant rek comme ni ñu ko gisoon ci bi te ndoorte la ba jamono ji wax ak yéen ñi nga xam ne jeudi ba commencé installé bâche yi ba tey vendredi bi ñu maam Cheikh nga xam ne suñu commission bu ci nekk taxawaay bi nga xam ne am na ko ci liggéey bi def na si ba lépp jàppale xanaa gën ñu santaat ko tedd ki rek kaddu yëpp daal kaddu yu dëgg la ak kaddu cant ak maam na si biir taxawaay bu baax si suñu yott kon sëñ Xaadim mën na laajoon ban yëg yi nga ci am tey ci bis bi. waaw a ah, tey yëg-yëgu mbégte ak cant rek kàddu yi cant yëg-yëgu cant bu tedd ki nga xam ne lépp rek moom mhm. ak bëgg ak yëg ak jim donc lan ci lan lan ci am mhm. lépp loo xam ni daal dafay jam dañuy jàpp ne moom moom moo ko jagal di mhm. sant daal mbokk taali ne dan doot la ba jamono ji ànd nañu ñoom liggéey sous commission yëpp jëwriñu sous commission yëpp

ci ñu ngi doon soxna Souare Sow nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey bi mbokk taalibe liggéey bi bu mucc ayib santaat nañ ci bu baax a baax a baax ndax xam ne ni mbooloo mi demewoon sax amoon nañ ci tiit waaye santaat nañ bu baax a baax a baax mel na ni moom ni ñu ko bëggee woon daal kawe na jox kawe na jox bu baax ñu ngi santaat bu baax a baax a baax tey tey tey tey di jàll jëlaat mbooloo bu baax a baax daal xam euh, nga. sëñ Modou ba ban ban yëg-yëg nga am ci bis bi ban yëg-yëg. xanaa xanaa bëggaat rek bëggaat rek mbégte rek muy sant sëñ Tuubaa daal ni ma ko mën a waxee ndax commission bi ñu bëri doon nañ tiit na at dina xéwal dina mat ak mat waaye wax dëgg yàlla kontaan seen borom ndax dafa mel ni dafa mel ni suñu dégg jàpp ko baax a baax moom santaat nañ ci a ngi jàkkaarloo Serigne Moustapha Fall secrétaire général du ahlu euh, xasida Touba Ricard euh, euh, Serigne Moustapha lu ngeen doxalee ci protocole yi ba xam amoo leen ci benn jafe-jafe ban yéeg-yéeg ngeen am ci bis jërëjëf euh, si Abdou Salat yi lay sant bu wax ci taxaw bi nga xamante ni itam taxaw nga ko ci liggéey bu am solo bi euh, nga bokk ci ñi nga xamante ni ñooy yaatal liggéey bi ci di ko wane ba ñëpp ñi nga xamante ni yàlla suñu borom def na xëy na mënuñoo teew ci bis bi man di ko topp saa su ne ca gën ngaa rafet waxam euh, li nga laaj nag comme ni nga ko laajee muy ni nga xamante ni démarche yi nga xamante ni mbooleem lu ñu doon dox bis bi ba mu tambalé ba bu mu yexi fi ndax danaka bo xolé ñun fiñu fété mu université doon yaay ay muritam donc kon xamna ci ñaar dal lañuy la ñuy tënk bi ci li nga xamanteni ni li nga xamanteni waras nuko jëlé ci ki nga xamanteni ni fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed al bashir ndax kep ko xamanteni ni taxawal lepp lu jëm ci Serigne bi la ci jitu moy nga dem buti ndigal ngir loola ngay fas def ngir mu am barke gën nga ca gën ca bëgg a sàkk biñ ci tàmbalee ci loolu nag dem nañ ci sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Chouan bi moom mi nga xamante ni moom la li sëriñ bi dénk liggéey boobu nga xamante ni moo jëm ci mboolem lu jëm ci xasiida ñu dem ci mu yeesal ndigal li ya àgg ak foo xamante ni sax ne jox naa leen ci ñaar téeméeri ndigal ndigal loolu xëy na mën nañoo wax ne moo wane bis bi fii mu toll tey bañ fa jógee itam dem ci sëriñ Basiirou moom sëriñ Abdoul Khadr moom tam wax dëgg mu defal ñu jàppandal goo xamante ni ba egsi tey ci bis bi bis bi nii kon bis yëpp fépp foo xamante ni dem rek mat naa dem ci yoon wi donc jëlee nañ fa ndigal ba ñu jógee ci loolu itam mooy personnel administratif bi nga xamante ni ñoom la ñu nekk ak fii si biir université moo tàmbalee ko ci direction ci directeur ko bi ñu tàmbalee bind nañu leen fépp foo xamante ni lépp lu jëm ci administration bind nañ demande yi nga xamante ni moom la ñu fa war a dem bind bañu accorder nako ba lolo waral tay ji nga xamanteni mom lañu def mom lañu taxawal fii ñu taxawal lolo kon ngi sant itam bu baax ji kilifa yi nga xamanteni ni yombalal lolo muy kilifa yi nga xamanteni ñom lañu nekkandok fi ci ci daara ji nga xamanteni moy université di lay sant bu baax di ñaan yalla suñu borom tam mu yokku len ba sa sonné rek liñu bëgg mu ñu di am laaj bi nga laaj muy impression bi nga xamanteni am nañ ko itam ci ci ci liggéey bi euh, damay wax ne da day deugal rek waxi serigne bi limu waxone ne tubaab bi dafa maa jiitu ci jëmm yi ma jiitu ko ci xol yi loolu daal daal day di loo xamante ni mën nañoo wax ne lii firnde la ci ci ci ci ci loolu ndax bu ñu gisee melokaan yi nga xamante ni mbokk taalibe yi mel nañ ko koo ci gis da ngay jàpp ne sax donga la boo xamante ni ma nga ca xel comme waaye koo ci gis ku nekk xamal ne ñu ngi ay mét do am na am na am na master master ci spécialité yu wuute ñii ñu ngi si seen cycle de thèse ñii ñu ngi ci ay professeur la ñu ngi génn commencé servir ñii ay ingénieur génie civil la ñii ay ingénieur lu nekk ñu ngi ci mbooloo mi donc damay dama wax ne sànq bu ma toogee ci jàngat dama ne ressources humaines bii teew fii mën naa wax ne bëriwul foo xamante ne dina fa daje te ñëpp boo xoolee ñu toog ci suuf di jàng xasida yi di euh, am si ñoo xamante ni sax danañ am yëg-yëgu sax daanu loolu nga xamanteni kon loolu kattanu serigne bi lay lay lay lay lay lay wane fofu rek wa dañuy santaat bu baax rek di gàttal fofu kaddu yi ndax wax deug sante dal lañ lañ rek lañ mën a jëf jërëjëf jërëjëf si jëwriñu finance kon fin Mustafa ñu lay laaj ana yan yan yan doxalin ngeen doxale ci wàllum xaalis bi muy andi di mënu yi joxe ak it ba xam jànkoon de ngeen ci ay jafe-jafe wa wala ak ban yëg nga am waaw ah, alhamdulilahi wasalla abada ala lazi bihi lana oda abada saddi lisaani nawir janaani safil amaani wasil baraay ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di jaaraamal di jërëjëfal Cheikh Ibrahima Fall Lamp ginnaaw bis bi nga xam ne suñ borom dogal nañu àndoon ko doon ko jëmmal diga defal khasside yi borom tuway diga defal sax suñ bop ndax nu mel khasside yi la li nga xamne ci lañu laaj rek moy li nga xamne mo jëm ci côté finance bi li nga xawé nak mom lañ taxawalé bis bi lu lenn lu dul pas-pasu murit ak bëgg nama liggéel sëriñ bi doon xaar suñ tuwa gatanu ci jël suñuy jërëm ak suñuy ñaar ak suñuy témèr dajale bolé kaak ñakki mourid yi nga xamne dañuy am yéene barkeelu ci bis bi ñew andi seeni addiye ñu dajale ko ba taxawal liggéey bi nga xamne mom lañ am xam rek liggéey bi pas-pas bi si am rek mooy duñ day jéggaani fenn lenn duñ si woo kenn liñ am lépp rek dañ siy xaar suñ Tuubaa te suñ Tuubaa fekk suñu si ba fekk suñu kayo suñ jor waaw kon sant bu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin jëf nañ jëf ji jëf ko si jëfinu kawe waaye suñ Tuubaa gàttanduñu si bañ am si tawféex ju yaatoo yaato yaatu sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin soxna Aïchatou euh, président de ahlul xayri ak Touba UCAD euh, laaj bi day daal di doon euh, euh, protocole yi nga xam ne doxal ngeen ko bi ñu jàppee bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi rafetlu laaj bi am na solo lool daanaka lépp day dugg rek C'est dans le cadre euh, de la, de la communication de Ahlu Hasida dans, dans l'ensemble. Bon, Pour nous, voir la communication nous devons loolu euh, dafay parce que pour nous, une communication là on vise euh, la visibilité. la visibilité nous ñu ñu de telle sorte que. Euh, et pour cela il y a divers moyens de communication pour pour parvenir à cela donc dans un premier temps on on s'est campé sur euh, les réseaux sociaux après ça on a une chaîne YouTube ëhlu xasida Touba UKAT. Donc pour toutes les informations, ça, passe par, là-bas. Aussi, on a une certaine particularité au niveau de Orlu Hassida, on a une euh, communication am une particularité parce que beaucoup de les euh, matière bu ñu soxla yëpp mi ngi foofu parce que y a des infographistes am na ay informaticiens donc euh, lépp lu ñu war a soxla tënk ko ci liggéey bi rek donc du ñu dem di ko jéggaani ci ci ay professionnels wala ci ay yeneen mbokku taalibe yoo xam ne si c'est en dehors du ëhlu xasida donc euh, particularité boobu dañuy dañ koy santé ku tedd ki daal voilà donc moom moom moo dajale matière boobu yëpp de ce fait suñu liggéey jafé na jafé wul euh dañ ci am yeg yëg c'est euh, amour lañ ci yeg euh mbégte lañ ci yeg et on aime ce qu'on fait li ñuy def dal bëgg nañ ko ci walu communication et tout donc pas de grande difficulté. Amadou Lamine Diouf euh, euh, yan protocole ngeen tëral tay wala ci yan anam ngeen doxalee ci walu dalal kenn. bismil xaddiimi. barkep mam Cheikh ibrahim Fall Lamp Abdou Samad Gay production ñu ngi lay jëfël di ñaan sa borom debbu la kattan euh, ba li nga xamanteni nam nga ci liggéeyal borom Touba mu antu ba nga amé ci lu koyeb ndior waye serigne Abdou Samad ñu ngi tambalé suñu kaddu di ñaanal serigne Sabrom bashir sa borom yagal ko fi lol ci barkeb mom mam Cheikh ibrahim Fall waye naka noonu it la ñaanal serigne Cheikh Jëmb Fall mom mam Cheikh ibrahim Fall sa borom yagal ko fi lol ci borom Touba yi sëñ Abdou Samad Gueye samay tàgg samay kaddu dama koy tàmbalee di sant ki nga xamante ni mooy jëwriñu commission accueil ki nga xamante ni dafa doxali li Cheikh Rafal naan humilité am dafa mat la mu doon ba noppi daal di roccee ko bàyyi ñun ñi ñu jiite waaye lépp lu dox ci yi lépp lu ngeen gis mu rafet lépp moom la lépp xalaatam la muy xalaat gu rafet muy Mouhamadou Lamine Ndiaye Baye Fall ñu ngi koy charré bu baax a baax a baax di ñaan saa borom dolli tawféexam ci barkeb xëcc yi li ñu doxal ci accueil nag waxi Cheikh Rafal lañ indi Cheikh Rafal daa waxoon ni gan ñetti yi képp la gan des koy teeru waaye gan des koy teral waaye gan des di teey lii la commission accueil doxal teeru nañ gan ñi tey teel na noo jóg toppatoo sàppe ku ci mel ni sëñ Mouhamadou Diouf Baye Fall dina ci ñëw toppatoo nañ sàppe ku ci nekk fa nga war a toog toog nga fa soxna yi teel nañ leen beral seen keesu bopp na ko Cheikh Rafal daan defee yaa dégg nga xam ni gëtt yëg yëpp rek teel nañ koo faggu fu murit toog rek fekk nañ la fa gëtt la ma ba nga bëgg yaa ngi dégg jukki yi ña doon durus durus gi jaar na yoon yaa ngi dégg xéewal yi ba mu ñëw it wax dëgg yàlla sëriñ bi dogal na ni toogin yëpp defar nañ ko ba xéewal yi ba euh, yaatu na ci murit yëpp rek lii daal mooy li nga xamante ni mooy li ma maîtriser ci commission accueil li ci des na xam naa ne sëriñ Mouhamadou Diouf dina ci ñëw waaye nag xam naa ne danga may may ma prox ndollu parce que damaa jàpp ni Abdou Samad Gueye production fu mu toll nii réew mi ñëpp lay seetaan te dafay yell bu ñu amee chance am privilège janook yow ci lu mel nii ñu jàllale quelques messages muy jur yi nga xamante ne tey ñu ngi toog kër ga dinu seetaan xam ni kat seen doom yi nekk fii ci daara yi université Cheikh Anta Diop gii nii bu weesoo jàngu nasaraan gën fi nekk nga xamante ni ay jàmbaar lañ ci nga xam ne duñ ci ab yaafus waaye nag terewu leen maanaam ñu doxal terewu leen ñu gën a dëgëral seen pas-pas diggante bu sëriñ bi loolu dafay indi lu lu lu lu Léopold Sédar Senghor waxoon Léopold Sédar Senghor daa waxoon enracinement ouverture Cheikh Rafal tëggal tëggee ko beneen tëggin nee na nit nga da ngay ànd amee sa pas-pasu bopp pas-pas dëgër waaye bu la tey ubbeeku ak le monde extérieur ku xool Abdou Samad nii mu taxawee xool sëñ Mouhamadou Diouf xool Baye Chérif Assane nii xool leen ni nu melokaanoo xoolal ni nu mel te kii bu la waxee ni c'est un géographe kii nekk ci beneen part beneen fac aussi nga xam lii mooy borom tubaa C'est ça la victoire de chez Ahmadou Bamba. Il avait dit que dans Assirou, à travers mon exil, Dieu a voulu élever mon rang, faire de moi l'intercesseur des miens et l'éternel serviteur du prophète. Et dans mes termes de Warni, tout vient des chassideux, tout revient aux chassideux et tout se comprend à travers les chassideux. Cheikh Rafal Djadjef. ok jërëjëf Cheikh Mohamed Lamine Diouf kaddu yi macha allah Khadim am solo lool kon xam dañu jox kaddu le président de la commission d'accueil Serigne Mohamed Lamine Diouf. sëñ Mouhamadou Lamine ban yëg-yëg nga am ci bis bi tey. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wajhal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida sëñ Abdou Samad noo ngi lay nuyu bu baax te la sant bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ci biir bés bi waaye di nuyu tamit comme ni ko sëñ Lamine waxe jëwriñ commission bi muy sëñ Lam sëñ Mouhamadou Lamine Ndiaye di ko jaajëfal tey nuyu tamit sama mbokki bi nga xam ne ñoom laa ànd liggéey bi muy sëñ Mouhamadou Lamine Diouf Hamza Baye Fall ak Serif Assane mi waaw di rafet lu baax kàddu yi nga xam ne sëñ Lamine yëkkati na ko daanaka lépp mat na ndax loolu mu wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko jàngale ci gan matali na secteur maanaam loolu la xam ne moom la ñu waaj moom la ñu waajale maanaam ni nga xam ne noonu lañ doxale ci bés bi waaye itam bés bi day bésu xasaayit boo xam ne ñi wuyu si ñi ci ëpp njabootu xaside yi lañ te kenn ku ne xam ne ne xaside moom day defar day tërbiya kon daanaka ñoom it yombalal nañu liggéey bi ndax wax deug yalla ñi nga xamne ñoo yor ci sapé yi ñi nga xamne ñoo yor manam parfum yi di parfum ñi nga xamne manam dañuy éviter nga xamne ne bi sax du am manam baganté bu bari lool lepp veillé nañ ci wax deug yalla sant nañ ci sëriñ bu baax ndax défal nañ ci ndam wa légui nak li ñuy waxat nak mom moy gëna jaaju jaajuwaat rek xamne ne wax deug yalla li moonu war delu delluwaat nak di santat sëriñ bi bu baaxa baaxa baax di gëna jaajeufal jaajëfaliwaat sunu waaji nga xamne amono amoon na dul moom muy maam Cheikh Ibrahima fallam ndax kat mboolem li ñu jëfandikoo ci bés bi rek maanaam aw doxinam la aw doxinam la te daanaka bis bi des na waaye mbokki taalibe yi nu ngi rafetloogun liggéey bi kon wax dëgg yàlla rafet nañ njot ne ni ñu ci doxale dal na xel dajja naak ni nga xam ne mbokki taalibe yi bëggoon nañ ko waaye akay nag dafa am ñaari ñaari ñaari pàcc am na ku ñoo xam ne nii ñoo nekkoon ci biir baas bi muy accueil interne mooy ñun ñii am na accueil externe tamit ñoo doon xool fi nga xam ne gan ñi fa lañ dal da leen fa dugal di leen toppatoo ba waxtu wi nga xam ne war nañ caa ñëw ca biir baas ba mboolem di sant sëñ Bas moom sëñ Abdou Khadir bi mu ñëwee gis nañu taxawaay yi nga xam ne waa akay am nañ ko fexe ba mu dugg duggin wu sel ba ñëpp gis sëñ bi barkeelu ci jëmmam ji waaye noonu lañ ko defee ci sëñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Amsata moom sëñ Chouaïbou bu mhm. noonu lañ ko defee tamit Cheikh Abdou Lahat Abi Mbacke xam naa ngir bañ a guddal dañuy gàttal foofu suñuy kàddu tey santaat bu baax a baax li sëñ Mouhamadou Lamine tëjee moom laay tëjee maanaam mooy xasida yi nga xam ne lépp mooy xasida yi waaw lépp mooy xasida yi nag xasida maanaam xasida ba noppee ci yow maanaam dox yoonu Seera Faal ngay dox te Seera Faal mooy kamaal gi waaw Seera mooy kamaal kon noo ngi soññaat suñu bopp ci xasaayit yi di ci soññaat mboolem ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan waaw jërëjëf sëñ Abdou Samad noo ngi lu bu baax waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim gannaaw bañ sante yàlla ya, julli si yonent bi ñi ngi sante bu baax cheikh na cheikh ahmed bamba khadim rasoul di sante bu baax cheikh na cheikh ahmed bamba xaadim di sante bu baax cheikh na cheikh ahmed bamba khadim rasoul di wax jaaram si ibrahim fall lamb bool mo di nga xamanteni ni mom lepp mom di ñaan laat si mun taxa mbàkke yàlla ya bàyyi fi ba mbébét yi nga xamanteni amna na ko ci yoon yalla katnal ko doyal ko ya ba mën ko yeggal ci barke la ilaha illallah naka non di ko ñaan sëñ Cheikh Fall jëmb di santaat bu baax a baax baax waa ahlu xasida bi yëpp di santaat plus particulièrement jawriñ yi nga xamantene ñom ñoom lañ àndaloon ci commission d'accueil wax deug fa yalla moom taxaw nañ gan yi taxaw bu am solo ñu mom sentiment de fierté lañ ci am ak sentiment de contentement bu maga maga maga mak wax deug ñun ñu ngi féete woon si accueil externe bi comme ni ko sëñ Mamadou Diouf rappelé sànq ni gan yi kilifa yi nga xamantene ñew nañ fi taxaw nañ leen si ni nga xamanteni talibé taalibe non la wara taxaw serigne gan ñi nga xamanteni ñew nañ fi taxaw nañ leen ni murit ci taxaw ay ganam non dong dal lañ doxé journée bi ba fi mu yegsi nii ñu ngi santaat bu baax di santat ñëpp jërëjëf le président de la xewal mooy mboolem berne nga xamal murit yi xewaloon ci loxoom lañ ko tegoon ana nan ngeen doxalee ci wàllu mbedd ban yëgeeg ngeen am ci bis asalaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilahi wa salla abada ala lizi bihi lana wala abada gannaaw bañ santee borom tuba loolu lay sant borom tuba voilà ngi jaajëf bu baax moom seeraan faal moom mi nga xam ñu ak yar ñu ba nga nañ ci ba ba ba mën maam bu baax baax bu baax baax ci bi nga maam Mouride borom Touba yi ci université Cheikh Anta Diop bi Dakar taxaw liggéey nañ ko liggéey bu doy waar boo xamante ne nii mucc na ayib mucc ayib goo xamante ne nii ñëpp ñi nga xamante ne nekk nañ fi danoo sant ndax benn day mate na fépp fépp la benn day mate amul kenn koo xamante ne maanaam neewut sant na ci li nga xamante ne maam mooy benn yi nga xamante ne def ko gannaaw nag man sante équipe bi nga xamante ne moom lañ ci àndaloon sant ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi seen lépp ñoo fi ànd ak ñun liggéey bi ñu leen di jaajëfe bu baax baax a baax a baax nag amoon na lu ñu wax ndax danoo sant santati santati ba ba tey jii nii ñu am bés boo xam te ñoo ko moomal suñu bopp di ko def fii ci université Cheikh Diop ci noonu ci la ñuy waxee ne maam mbégte mii ñu am maam duñ am mbégte mu ko gën a réew ndax sëñ bi chaque jour daf ñu tew féexalee ñu nekk ci yoon woo xamante ni maam day mucc ayib te ku ñu xool ci yoon yi nii daanaka day gën a sant ndax sant gi mooy ñoo nekk ci milieu boo xamante ni dañ koy wax milieu campus social mu nekk milieu boo xamante ni dafa bëri influence lool waaye murit borom Touba yi Serafal taxaw na leen taxaw boo xamante ni yënguwuñ ci ludul Serafal yënguwuñ ci ludul murit yënguwuñ ci maam jënd murit ki ci biir nit ñi te nag loolee dañ koy sante moom maam Serafal yi nga xamante ni moom moo ñu taw fexal tey fan yoo loo xamante ni maam daf ñu ko fay wàccal ñu koy gëstu bu baax a baax a baax lu mel ni gis bu murit moo ko taalif daanaka soo xoolee li mu wax ci liggéey li ci liggéey xit ma waaw man cee santal bu baax a baax a baax ndax suñu féetewaay rek moo moo tax ndax tey jii nii dañuy nekk ci ndogu yi dañuy nekk ci waañu màggal yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen te loolee moo ñu may expérience ba nga xamante ne nii ñu dugg ci gaa yi ci noonu nag la ñuy santee gaa yi fi nekk yëpp tàmbalee ko ci moom mi nga xam ne mooy maam Cheikh Anta nekk jëriñu liggéey bi yëpp bañ jugee ci loolee ñu santee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy accueil jugee tàmbalee ko ci maam Lamine Ndiaye ak la Baye Lamine bi Hamza Baye Fall moom mi nga xam te ñoom ñoo ak ay jàppal ñu ci liggéey sant nañu bu baax a baax a baax gars yi ñoo ñu leen toofeel baax ku ne xam na ni euh, euh, bisub xasida bi euh, bu ne bokk na ci li ko taxawal ñu majaal mi nga xam ni bokk taalibe yi doon nañ ko amal ci ay gox yu fasandikoo fii ci fii ci ci Dakar ak li ko wër kon xam naa dañ daal jëmbal sëñ Mouhamadou Lamine Diouf ñi nga xam moo jiite wu majaal bi bismillah bismil khadimi barkeb mam Cheikh ibrahim fallamp serigne Abdou Samad Gay production eh, li nga wax ci madjal gi danaka daanaka mënatuma ci wax lu beure beure lu yato yaatu waye li mat xam dal moy li mat japp dal moy wax deug yalla madjal gi gis nañ manam fu mu fété bëss bi waaw te gis nañ li ci gëna neexati moy ci biir màjjaal gi man dama cee gën a xamee ni gars yi borom Touba képp lañ bëgg waaye gars yi ko leen woo ci liggéey borom Touba képp lañ bëgg moom la ñuy xaar moom la ñuy déglu fépp fu ñu dugg ci Ndakaar moo xam muy Tilène moo xam muy Castor moo xam muy Petersen fépp foo dugg ba Pikine saa yoo taxawee taala sab këll ne bisimilah ñu barkeelu ci bésub xasida université Cheikh Anta Diop lu waay amoon ak lu mu amul maanaam da ko ciy def nga xam ni kon nit ñi bëgg noo liggéeyal borom Touba kon ci kaw loolu ñu di santaat bu baax a baax yaakaar jooju ñu amit ñu ñaan saa borom tubaa moom saa sa borom tubaa dëbbu leen kàttan ba lépp luñ ko nam ma liggéey rek mu antu ci barkeeb xasida yi waaye nanu xam ni daal màjjaal ji amoon na solo lool lool beneen aspect bu am ci màjjaal mooy ñaare nit ñi dañ koy fàtte mooy màjjaal fu mu toll dafa am liggéey bu muy def ci doomi aadama bi màjjaal dafay dindi rëy ci doomi aadama rëy nga xamante ni mooy tubaab naan orgueil màjjaal dafay raxas lépp luy taar et vice di nekk ci doomi aadama màjjaal noonu la koy noonu la koy raxasee te ñëpp xam nañu nag rëy moom àndul ak xam-xam waaye rëy aussi képp ko def leeral lañ ne maanaam comme nekkul kuy dëkkee àjjana waaw waaye nanu xam ni li Cheikh Rafal waxoon képp moo fi nekk humilité sinon humiliation kon majjal gi kat daf ñuy roof daf ñuy roof humilité waaye daf ñuy tàqaleeg humiliation tàqale ñoog rëy tàqale ko tàqale ñoog ay vice ak état sëñ Abdou Samad Gueye production yi daal xam naa la amoon li may leeral ci kenn ci sunu yaay booy àndoon na ñu liggéey bi nekkoon ci waañ bi muy sunu yaay euh, bëgg fàllu kon dañ koy daal di jox kàddu gi di ko laaj ban yëg-yëg la am ci bis bi. macha allah macha allah sa yëf yi neex na démb ba tey ñu ngi nekk naan étudiants yi nag maa ngi leen a ñaanal sa barke Fallou sa barke sëñ Fallou sa barke sëñ Fallou sa barke sëñ Fallou mu la juróom-ñaari bi nee na doy na te étudiants yi liggéey nañu liggéey ak sëñ Touba. na taxawoon nañu taxaw sëñ Touba. Mhm. ñu oote yëpp affaire sëñ Touba la. Mhm. amuñu si benn foxukaay amuñu si benn caaxaan. Mhm. ñoo koy def ba mu ma sëkk. li ñu bëgg yal nañu ko yàlla def. amiin li bëgg si àddina yal nañu ko sëñ Fallou teeru wala ñëw nga am si ndam. jërëjëf maa ngi leen a ñaanal nag. si